at Tiwaawan eh, di nuyu ñëpp di ziare ñëpp di ko commencé ci kilifa diine yi fi nekk et également aussi di di di di di nuyu suñu camarades yi nga xam ne ñoom lañ fekk fii bi yëf yi commencé ba léegi ñu nekk ci waaw SatSUS nag tey moo fi ñëw joge jógee partout à Dakar mooy ñi nga xam ne ñoo jiite syndicat wu technicien supérieur de santé yëpp domaine yëpp ñoo fi daje tey et doon waxtaan ak askan wi ñëw également fekk si ñi fi nekk di leen jàppale di ànd ak ñoom ci xeex bi nga xam ne ñoo ko bokk. waaw man nag maay secretaire général national maa jiite syndicat boobu au niveau national bu bu technicien supérieur de santé du Sénégal maa ngi tudd far ba di Ibrahima Ndiaye. waaw donc ñu ñëw fi tey ànd ak suñu naataango yi nga xam ne nii ba yëf yi commencé ba léegi ñu ngi ci di leen mastawu di mastawu personnel hôpital bi yëpp di mastawu également aussi waa dëkk bi. ndax loolu bi mu amee ba léegi je pense que ñi ko def renforcer wuñu santé mais dañoo dellu santé ginnaaw parce que lu nit ñi doon def wàññi nañ ko wàññi nañ ko ci côté yu bëri wàññi nañ ko ndax liñ leen def neexu leen wàññi nañ ko aussi ndax seen xel dalatul seen xol dalatul dara wóor waaw te di nag aussi di commencer di interpeller quand même et justice bi nañu nañu éviter nañ xam ni ñii ñuy ñii nii agent de santé yi professionnel lañ comme ñoom dañoo am seen domaine am nuñ koy tëralee am nuñ koy doxalee bis bu problème bu am li ñu naqari mooy li fi am lépp <coughs> mu commencé depuis Linguère ba ñëw fii ni Tivaouane ay lakk-lakk la je pense que suñu formation de jàngal nañu lakk-lakk mais ni ñu jàngalee mooy nu ñuy fayee nu ñu koy fajee bu nit lakkee nu ñu koy fajee mais bu lakk amee nu ñu koy fayee jàngaluñ ñu ko et je pense que amuñu responsabilité ci direct ci li li li rey xale yi parce que bu ñu jàppee nii lu mel ni su amee mu mel ni flagrant délit mu mel ni ñun ñoo rey ñu téye ñu loolu aussi lu ñu naqari la il faut donc justice bi comprendre que ni ñun dañu am lu ñuy liggéeyee am nu ñu organiser suñu liggéey parce que li ñu xam ne moom la ñu leen jiiñ ne dañoo bàyyi ay xale yu ndaw ay tout tànk yoo xam matuñu mbala ñu juddu wéruñu ñu defal leen yóbbu leen service bi ñuy wax ni mooy service néonatologie ñu bàyyi ñu ne dañ leen faa bàyyi ba tax loolu arrivé leen loolu mooy ñàkk xam service boobu lu mu teg ak xale yooyu lan lañ xale yu matul lañ xale yoo xam ne nii wéruñu xale yoo xam ne nii seen li leen war a jàppale seen yaram pour ñu bañ a feebar bañ a tëdd matagul ñooñu nekk ñoom bu ñu koy def sax da ngay sol masque def lépp moytu dara taq leen moytu leen indil sax lu leen mën a gàllankoor ba nga xam ne ñooñu wéet bi ñu leen di bàyyi ñuy wéet lu normal la boo leen defaree soin sang leen ba ñu set jox leen ñu lekk nampal leen def leen seen couche taal lampe bi sax da nga leen ko war a defal veilleuse teg leen ñu nelaw nga génn dem toog def leneen liggéey raxas matériel bi nga doon bi nga doon bi nga doon defee soin enregistré li nga doon def loolu loolu mooy li nga xam ni mooy suñu liggéey suñu mel ni amatee dañ leen di ñaan ñu woo les professionnels yi nga xam ne ñooy professionnels de santé foo ci dem am na ñoo xam ne ni mooy ki yore service de santé des soins infirmiers parce que ay soins infirmiers la nga woo leen laaj leen nan la nit ñu waroon liggéeyee waaye bu noo toog sa bureau rek di def say imagination di génne say phrase di génne ay texte affaire yoo xam ne nii ñun mënuñ ko comprendre loolu moo waral li fi am yëpp ñuy jàpp agent de santé yi surtout ñi nga xam ne mooy les agents ñi ñu yaakaar ni ñooy ñu ci gën a néew doole ñu ngi nax seen bopp nag parce que gënuñ cee néew doole ndax gënuñ ñoo ci ëpp tey moom ñoom ngay dem amul suba amul guddi amul ngoon amul mu tàng amul muy taw amul muy neige foo dem heure boo demee di nga leen fekk seen place su liggéeyukaay ku wàcc rek keneen jël sa place ku wàcc keneen jël sa place loolu nag ci porte bi la ba ba ngay àgg ci morgue bi foo mën di dem service boo dugg ñooñu ñoo fa nekk donc ñooñu tey boo foogee ne ñoo néew doole ba tax nga bugg leen a faagaagal heure bu problème amee seen li nga xam ne nii moo nekk origine yëpp problème yi ngeen teg ko fële ñëw attaqué leen safara su tàkk xanaa kay kuuk doy na waaye kuuk kuuk li ñuy nekk nag kuukaat troisième kuuk la ñuy nekk pour jéem xool réellement fan la problème bi nekk je regrette bu fekkoon ay sanction te ay yu deful dara moo mënoon régler problème bi ba ñu jàppee waa Linguère yi créé leen leneen lu mel noonu du fi am mais defuñu ko lañ waroon a xool xooluñ ko ñañ waroon a topp toppuñ leen lañu war a def defuñ ko marché yi xam na ni ñu koy joxe les marchés publics c' est le meilleur offrant il y a aucun critère qui vaille que le les marchés on donne à quelqu'un mu jël joxaat keneen joxaat keneen mais marché bu ci téeméeri nit bëggee lekk ci affaire bu ndaw mais c'est évident que nit ñi duñ ci def matériel bu baax duñ ci def lu baax donc yii buñ bëggee mu dakk je pense que heureusement heureusement le président de la république moom en personne moo ko njëkk a wax bi mu ñëwee fii li mu wax xam na ko moom déjà au moins am na lu leer ci boppam xam na ni problème bi du tëj ay infirmier ki sage-femme yu ci doonul mooy régler problème bi li koy régler mooy ñu xool li ñu fi teg nan lañ installé matériel bi et puis day jox na ay directives pour ñu def ko dans tous les hôpitaux loolu koy mooy wax ne xam nañ problème bi nañ bàyyi nit ñi ñu dellu seen seen seen kër ñu continuer seen institution sur le plan technique ñu dem def ay recherche côté boobu xool li am problème ñu trouver ko définitivement régler ko mais il ne sert rien lii moom noggatu la noggatu la bu ñu yaakaar nag mën nañ noggatu nit ñi noonu muy jàll dafa doy ñii déjà def nañ un mois et demi ñu ngi ko un mois et quelque ñu ngi ko def nañ ko actuellement en prison ca amagul euh, munuñu leen taqal en rien li ñu leen di wax defuñ ci lenn amuñu benn responsabilité ci affaire bi nañ leen bàyyi surtout ñu ngi jëm nag tabas ñu ngi koy wax nag le président de la république di ko formuler nag avec toute la discipline qu'il de grace libérer nos camarades qui rentrent chez wax ci ñu bàyyi leen ñu dem ñu dem ñibbi seen kër dem tabaski ci seen kër dañuy wax nag waxantuwuñu bu ñu yaakaaree ne amuñu doole amuñu importance système bi nax nañ seen bopp gis nga lii su dakkee bàyyiwuñ leen bu soobee yàlla tout le système sera paralysé en tout cas suñu ne sera paralysé xam nañ fu ñu ko teg am nañ fuñ ko teg ca loolu moom duñ ci dellu ginnaaw waaw parce que jusqu'à présent ñun gisuñ ci benn responsabilité directe buñ ci am sowee woo benn sowee ñu kii buñ fa newoon dinañ def ni mais li njëkk am kay mooy yow dangay ngay moytu donc vraiment ñu ngi demander solennellement que ces camarades là soient libérés ñu passé ci seen tabaski seen kër ay responsables lañ ils peuvent bénéficier mun nañu bénéficier wu vraiment de de de liberté provisoire en attendant ñu continuer seen parce que fii lañ dëkk condition yëpp dajale xam nañ leen fi ay kilifa lañ fii lañ dëkk. yàgg nañ fi ay plus koo xam ne dem nga ba say doom nekk à l'université nekk fi kooku xam nga ni kooku lu fu muy soxla feneen ñooñu demuñu fenn am nañ ay garantie nañ leen bàyyi ñu ñibbi seen i kër ñu continuer def seen enquête ca enquête bi mooy lan nañ topp li président bi wax nañ dem xool parce que def nañ ko fii dinañ ko defaat feneen dinañ ko defaat feneen tant que dispositif yi xooluñ ko xool lan moo expliqué ñun jàngal lu ñu lakk-lakk li ñu ci jàngal mooy les trois degrés xam dimension yi xam lépp def suñu calcul faj ko xam ni koy fajee mais lay taal ñun duñu taal la taal lag moo rey nit ñi nañ leen xool ñooñu ko taal vraiment sa moom on y